برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام أريد مويلان mooy lan. ki nga yaakaar ci moom njëriñ mu fegal la di la indi njëriñ. ki nga yaakaar ci moom njëriñ mu fegal la di la indi njëriñ. kooku nga jàpp ne mooy sa xarit. kooku nga jàpp ne mooy sa xarit. bu safaan ba feeñee ci moom rek daal mu daal nekk noonu. bu safaan bi feeñ ci moom mu dal di nekk am noonu. ki nga yaakaaroon ci moom njëriñ bu ca lor bàyyeekoo. ki nga yaakaar ci moom njëriñ su ca lor bàyyeekoo. mu daal soppeeku noonu. mu daal soppeeku rek noonu. loolu moo tax noonu xarit àddina yëpp dañuy mujj noonu rek. looloo tax xarit àddina yëpp dañuy mujj noonu te ca yàlla. ndax safara. ndax buñ ñu tabb ci menn mbugal ñu tabb ci menn mbugal ci xeeti mbugal yi mun ci mën a doon. ñu jàpp na nag seen xarit yaa leen dugaloon ji la dañuy jàpp na seen xarit yi ñu àndatoon démb ñoo leen dugal te mbugalam tey moo ma ñu safaan ba itam ñoom yàlla itam safaan ba itam lu ñu am ci xéewal lépp lu ñu am ci xéewal ak ci may ci wàllu yàlla la dañuy jàpp yi la seen xarit yàlla baxee koo ndax ndax dëgg dëgg xarit. mën na ci xaritam. mën na ci xaritam dara. bari na kuy def lu baax ci xaritam la ko royee. bari kuy def lu baax ci xaritam la ko royee. bari na kuy def la ko royee. bari kuy def lu bon ci xaritam la ko royee. moo tax. looloo tax. na nga tànn nag ngay xaritoot. na nga toll léegi ci ngay xaritoo. nit laajal xaritam. bul nit kii laajal kuy xaritam. diw diwee xaritam rek nga daal di xam ni muy def. bul la diw day diw moo di xaritam la muy jëf. jullikat yaa ngay xaritoo ak jullikat ya. jullikat yi ñu ngay xaritoo ak jullikat ya. jàngkat yaa ngay xaritoo ak jàngkat ya. jàngkat yi it. ñi ngi xaritoo jàngkat ya. ak kat ya it dañuy xaritoo ñay haji. sikarkat ya it dañuy xaritoo ñay sikar. naankati sangara yi dañuy xaritoo ñay. naankati sangara xaritoo ñay mandi. tuxkat yi dañuy xaritoo ñay. xaritoo ñay tux. xarit bu nekk ci xaritam lay rey. ci xaritam lay roy. jëmmi doomu aadama yàlla def. ndax def. muy roy. muy roy. lépp lu mu gis rek bëgg koo roy. lépp lu jëmmi doomu aadama gis rek. ñu ngi koy bëgg a roy. toppandoo rek la doomu aadama. doomu aadama mooy toppandoo. ñu baax ñi dañoo toppandoo ñu baax ñi bu baax. ñu baax ñi dañoo toppandoo ñu baax. rek baax. ñu bon ñu dañoo toppandoo ñu bon ñu rek. ñu bon ñu itam dañoo toppandoo ñu bon ñu rek bon ñu ñoom. tax toppandoo bonul waaye toppandoo ku bon moo bon. bàyyi ne loolu moo toppandoo moom bonul waaye toppandoo ku bon nag mooy li bon. da toppandoo te toppandoo lu baax.